sommes euh, à Diakhao Ravitaillement. Ouais. Voilà le sentiment euh, à l'issue de cette visite de chantier, c'est quoi? Mais merci beaucoup. Donc c'est l'occasion aussi de remercier très sincèrement tous les conseillers euh, de, du conseil municipal de Thiès Nord et particulièrement ceux de Diakhao. Mais pour simplement dire que quand on est, on a été porté à la tête de la commune, on avait fait un constat global du point de vue aménagement de la commune Thiès Nord. Il y avait des axes comme la route nationale qui étaient totalement ensablés. et qui n'avait pas de trottoir, la route Morolan, aussi qui recevait euh, quand même tous les élèves du privé et qui n'avait pas de, de, trottoir. Mais également la rue de Gare, l'avenue Amadou Barreau, euh, mais plus particulièrement la route ravitaillement. Donc il fallait quand même que la commune Thiès Nord agisse. Et c'est pour, pourquoi nous avons, avec euh, euh, le soutien du conseil municipal, mobilisé 171 millions. pour véritablement euh, faire ce qu'on le pavage piéton sur les axes route et la route Morolan, mais également faire le pavage saucé au niveau de la rue de Gare et avenue Amadou Baro Ndjegen. Et, et, et aujourd'hui et, présentement, nous sur la route euh, je crois que dans, comme l'a si bien dit l'entrepreneur, euh, dans 92 jours, nous pourrons quand même véritablement euh, réceptionner tous ces et pour dire aussi que l'argent est disponible. Et donc euh, et là, euh, c'est la commune Thiès Nord qui est aux, aux côtés de ces populations. Et ça, c'est le premier domaine, l'aménagement, qui, est une compétence transférée euh, aux collectivités locales, qui a été quand même prise, euh, je totalement en sarge par la commune Thiès Nord. Et dans les prochains jours, nous allons décliner dans chaque compétence ce que la commune Thiès Nord a pu réaliser. Oui, donc comme euh, on, a, on, a, on a aussi euh, joint, euh, allié l'utile à l'agréable, donc initialement, ce qui était prévu sur cette euh, route-là, c'était la réfection euh, totale de la chaussée. Mais l'entrepreneur nous, a fait, nous, nous a signalé qu'il fallait quand même euh, accoupler ces travaux euh, de, de, réfection à des, à, des, des aménagements de trottoirs et également à des travaux d'assainissement. Donc ce qui a été retenu. Et aujourd'hui aussi, nous avons dit pourquoi pas refaire totalement l'éclairage sur cet axe. Et si vous voyez bien, donc c'est tout l'éclairage que nous avons quand même euh, Et donc aujourd'hui, c'est un bisou que nous, que à la, la communauté de Diakhao. À la retraite, j'étais à la mairie nord de Thiès. wala tey ci turu délégué quartier Diakhao nga ngay wax waaw euh, délégué de quartier Diakhao El Hadj Gourmang Ndiaye ak conseil yi nga xam ñoo ko wër. ak point focaux yi ko wër ñëpp dañoo kontaan ci ñëw bi nga xam ni ci la maire ñëw fii la presse ñun dencee kontaan bég ci mbégte la ci ñun parce que fii dana bari ay accident yoo xam ni surtout jakarta yi ak yeneen oto yoo xam dañu ñëw gaare ci tali bi nit ñi di éviter pax yi ba dal ci kaw nit wala ba dal ci kaw oto loolu nag moom pour moom pour ñun euh, lii nga xam ni moo ñu ko dindil tey jii muy projet bi kontaan nañ ci moo tax ba ñu accès soxla siège boo xam ne fa la ñu war a nekk man maa leen dalal indi leen foo xam ni tey jii mën nañ fa stocker seen matériel et tout ce qui s'ensuit euh, au non de El Hadj. lan léegi dëkkandoo yi pour euh, liggéey bi euh, yombal leen ko. waaw dëkkandoo yi aussi ñoom ils sont très satisfaits ils sont contents ils sont à la disposition de la mairie ils sont à la disposition quand même projet ñi nga xam ni. Euh, nekkoon nañ sax sur euh, occupation domaine public gis ngeen fale ñu bari dañoo dindi seeni place ak yu demee noonu xam ni ñi nga entre dañuy entravé travaux yi yooyu yëpp man maa ko chargé wu te it vraiment kontaan nañ ci liggéey bi bu baax a baax kontaan ci monsieur le maire aussi. merci. réseau pluvial vers le canal de Diakhao euh, le maire nous a instruit récemment d'ajouter aussi des travaux de pavage de trottoir ce qui n'était pas prévu dans le marché initial pour pouvoir stabiliser non seulement la chaussée, mais également pour euh, un peu améliorer l'embellissement de la rue. Voilà. L'autre aspect, euh, vous se rend les, briques sont fabriquées euh, Bon, le, ça aussi, c'est toujours c'est une demande de la, du maire. Euh, quand, quand on nous a attribué le marché, il nous a instruit de faire la fabrication, si de le faire sur place pour pouvoir engendrer euh, des emplois au niveau local. Parce que actuellement, tous ces jeunes qui travaillent les, sur deux sites-là, les deux chantiers sont des jeunes de la commune de Thiès au moins, on a chaque jour 40 à 50 éléments qui sont, si vous voyez euh, ceux qui sont là, euh, ils font, actuellement, on a 25 jeunes qui sont là en permanence durant tout le projet. est la durée C'est jours. waa bon. kon euh, comme ni ma ko waxee maa ngi tudd Moustapha Ndiaye nekk DG wu entreprise EFA entreprise africaine de fourniture et d'aménagement euh, fii marché la boo xam ni commune Thiès Nord moo ñu ko jox dans le cadre du PACASEN pour ñu refaire tali bi avec euh, avec des pavés parce que tali bi dafa faible woon épaisseur bi ce qui faisait dañ ko doon rafistoler tout le temps mu yàqu. jaxaaw euh, ravitaillement voilà donc c' est une linéaire de 350 mètres on est en train de le faire ci pavé wu euh, chaussée des pavés vibrés industriels pour une résistance des gros porteurs de 8 à 10 centimètres d' épaisseur. voilà c' est pour que mu mun a jël camion yu mag yi. voilà. en même temps daf ci yow dañ ci yokk aussi travaux assainissement pour muy mën a yóbbu ndox mi ci canalu jaxaaw bi suñu paree ci loolu dañ ci def aussi ay aménagement trottoir pour fi nit ñi di dox ñu bañ dox ci kaw tali bi waaw jóge nañ ak fii ñu nekk ñaata ndaw ñu si euh, euh, liggéey ak durée liggéey sur les deux sites actuellement on a quarante à cinquante jeunes par jour maanaam ñeent fukk wala juróom fukki nit par jour yoo xam ne ci commune Thiès noor lañ dëkk yu fi xëy di di liggéey ku fi xëy aussi ñun ku fi xëy ba wàcc dañ lay fay nga ñibbiwaale c'est notre c'est c'est c'est c'est c'est ce qu'on fait waaw chaque jour on paye à la descente euh, ñetti weer la war a durer muy 90 jours waaw. li leen warloog mairie bi lépp jekk na pour ñetti weer liggéey bi pare. waaw mairie bi maintenant à notre disposition bon tout ce qui est sur le plan administratif hein, tout ce qui nous permet de travailler bon il nous a facilité aussi l'accès à avoir un base une base de vie comme base bi ñu am fii bon population jaxaaw bi aussi yombalal nañ ñu ko vraiment bi ñu ñëwee ku mel ne commissaire Fall jàppale nañ ñu ñu am fi base pour mun a liggéey fii mun a jeunes yi mun ci mun ci liggéey parce que c'était mieux ñu koy liggéeyee jam ñaajo di ko i marché bi. ci liggéey bi ci toll ni nga gis ndax dal na sa waaw dañ ciy sant suñu borom rek comme lu ma wax tey ku fi ñëw nga xam ni c'est du sérieux donc comme lu may wax bu ñu la falee population yi boo leen di liggéeyal nga liggéey lu nga xam ni dinañ ci kontaan tey boo dégloo population yi xam nañu luy Thiès Nord du def lii du affaire politique lii pour jàppale askan gi la euh, ba ñuy ñëw. Euh, dañoo gisoon ni Thiès Nord si point de vue aménagement dafa amoon ay jafe-jafe si yenn axe mi yu mel ne route nationale nga xam ne tali boobu suuf bi da ko lekkoon amul woon sax trottoir nga gis route Morolan bi nga xam ni tout c'est foofu mooy polariser toutes les écoles privées catholiques élèves yi bu ñuy dox amuñu fu ñuy doxee amuñu trottoir mais également la rue de gare jëm Amadou Baro Ndiéguène tali boobu yàq complètement nga ñëw ravitaillement bi sose bi nga gis ni fii amul sax du tali ay pax laak lii donc là avec l'accord le soutien des conseillers municipaux de Thiès Nord la commune Thiès Nord mobilisé 171 millions de francs pour ni loolu nga xam ni moom moo nekk ci aménage bi nañ ci dugal suñu loxo ba askan gi xam ni euh, dugal nañ suñu loxo moo tax tey pavage piéton yi nga xam ni moom la ñuy def route nationale bi ak euh, route Morolan bi ñu jàpp ni nous sommes rek à 60 pour cent desaat na 40 pour cent yi nga xam ni war nañ ko continuer si ñaari axes yooyu actuellement ñu ngi ci travaux de pavage chaussée mu concerner rue de gare avenue Amadou baru Ndiéguène mais également la la la route euh, ravitaillement mais du wax fii nag nga xam ni moom mooy la route euh, euh, ravitaillement dañ ci boole leneen li nga xam ni c'est sur demande de l'entreprise mais aussi en en en accord avec les populations parce que dañu ni comme tali bi problème majeur la woon. bu ñu ci duggee nañ ko defar ba nga xam ne lépp lu mu soxla rek lu mu laaj nañ ko ci def maanaam bu leen yem ci sose bi na ànd ak trottoir mais également éclairage moo tax yooyu yëpp la ñuy jël en donc société bi dinañ ko defar dinañu defar euh, trottoir yi mais également éclairage bi boo xoolee éclairage moderne donc euh, ay dafay mel ni ay ledd la du du ta du solaire moo koy tàkk courant koy tàkk mais mooy gën a leer parce que mooy gën a yàgg moom la ñu def si axe bi donc du wax rek du gërëmaat bu baax a baax population waa Jaxaw mais particulièrement les conseillers de Jaxaw yi nga xam ni seen taxawaay ak seen fulla tax na ba lii ñu mun koo indi Jaxaw. monsieur le maire Thiès Nord du Jaxaw rek ak marché central wax nga léegi si français ñeneen quartier yi mën nañu xaar li leen defal. waaw xam nga comme ñun dañuy dañuy xool li fi nga xam ni moom moo gën a euh, jafe-jafe yi danga koy hiérarchiser donc jafe-jafe yi fépp la nekk mais compétence moo mel ni aménagement euh, dafa dafa laajoon ñu ñu def ci suñuy empreinte ba askanu Thiès Nord bi yëpp xam ni commune aménagement def na ci fulla ak faydam ci prochains jours yi di ngeen gis éducation bañ bañ ñu defee ci bopp mu nguur gi luñ ci def santé neuf domaine de compétence bu nekk dañ leen wax luñ ci def bii nag aménagement la donc dañ ci gis nañu ni liggéey bi franchement avec les techniciens liggéey bi qualité lu gën a am solo aussi bu ñu lu ñu war a wax mooy liggéey bi ci cahier de charge bi dañoo wax entrepreneur bi bu doon suñu sago mooy entreprise foo ko mun a am nanga nga ko délocaliser indil ñu ko commune Thiès Nord maanaam machines yi yi nga xam ne ñooy fabriquer pavé pour que ndaw ñi mun cee am xëy loolu aussi mu nangul ñu ko de gis nañu site bi nga xam ni foofu la ñuy defee production bi nga xam ni machine yeeg tey koo fi gis mu sol mu nekk si entreprise bi du liggéey doomu Thiès Nord la loolu aussi dañ ci sant parce que aussi euh, wareef la aussi pour que ñu xool aussi nan la ñuy jàppalee ndaw ñi nga xam ni euh, ñu ngi si commune bi si wàllu xëy. lan mu mujj yow yaay patron parti Rewmi si département bu Thiès en même temps coordonnateur communal ci Nord fu ngeen toll si bind bi jeex euh, démb ndax li ngeen bind doy na ak. ñu ngeen war a tabb si si liste le 30 octobre. waa xam nga kooku moom ñëwagul dañ ciy sant suñu borom rek processus la woon étape euh, étape la woon ci processus électoral bi et je pense que démb la tëj. li nga xam ni moom moo ñu waroon en tant que parti def nañ ko te ku demoon ci commission ba donc début bi sax am na ñu doon wax ni voilà fan la réew mi mais ba ñu ba ñu ba ñu yëngalee waat suñu suñuy levier les directoires politiques de centre de vote dañoo envahir sous préfecture xam nañu ni Thiès Nord moom jar du lu nga xam ni la ñuy werante donc euh, ah nekkul combat quoi c'est vrai donc moo tax ñun xam. vingt candidats yu yëglu de. waaw ñooñu non non ñoom ñoom dañuy yëglu pour doon conseiller municipal mais yëgluwuñu pour doon maire. <laughs> bii woon ci biir jaxaaw man abisi laa tudd dëkk fii jaxaaw dëkk fii jaxaaw nag xam geddaru tali bii ni mu mel woon ak jab waaw tali ravitaillement bi ma xam ni mu mel woon jafe-jafe biñ ci daan am bu ñu daan jël taxi sax boo nee jaxaaw mun na du ma dem jaxaaw parce que tali bi dafa yàqu ndox day taa. kenn du fi ñëw suñu doom yi sax bu ñu génnee da ngay gis ku faqatalu ci gét ci ban bi daanu ma ciy gërëm monsieur le maire mi nga xam ni moo taxawu projet bi moom mu ñëw fii monsieur le maire sant naa la gërëm naa la parce que jafe-jafe bi ñu amoon fii nga dindil ñu ko ñun tali bi ñun ñun dañ cee am dañ ci am mbégte dañ ci am bànneex parce que coono bi ngeen ñu dindil xamu leen sax métit bi ñu nekkee woon nu mu toll. ba bu pare di ngeen euh, contrôler xale yi. dina tali bu pare moom jakataay bare nañu léegi. waaw jakataay pare mais dinañu contrôler xale yi. parce que tali bi moom vraiment léegi ndax bu njëkk dangay daw rek faqatalu ci pax yi jakataa ñëw mais léegi boo dawee doo faqatalu daw bi day neex dox bi day neex may gërëm mu le maire nag di ko sant. liggéey bi tàmbale nañ ko naam eggagul ndax li ngeen gis dal na seen xel. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah man la Thierno Ciss délégué général central bu Kees président Inaakuwa jàppoo bu Kees ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di gërëm aussi population Mas Central ñu ngi leen di gërëm di gërëm monsieur le maire mi nga xamante ni bii euh, travaux yi yàgg nañu ko commencé demandé depuis 2019 ba léegi ñu ngi ci woon ak moom ci problème mu rue de la gare ak assainissement Mas Central ak euh, électricité Mas Central ba léegi ñu ngi ci doon dox ak ñoom. ba 2021 am ay changement yu ci am wax dëgg la ko ciy sant di ko gërëm parce que keroog woon nañu fii aussi bi mu gënee métti ñu taxawoon génne presse bi yëpp ñu joxe woon délai bi nga xamante ni bii buñ fa yeeg bu fekkente ni ñu dara ba délai boobu daañu at droit de commune yi mais yàlla dogal na aussi bi mu koy yëgee aussi jël ni ci ay matuwaay yoo xam ni jël ko ci ñun aussi vraiment tem ko jël ni ci ay mat ñu retiré wu accompagner ko bu ko defee mu mën a liggéey liggéey bi yegg gis nañu liggéey bi mu tàmbali rafetlu nañ ko lool mais ñu continuer te ko parce que ba avenue ba euh, rue de la gar ba continuer ba avenue Barou Ndiéguène mais nag euh, ñu ngi koy ñaan aussi li commencé ji rii fii garage Kalando ba jëm église ba am naa du ji budget bi mais beneen budget mu mën ko ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu ngi ko ciy ñaan bu baax ñu wax ni aussi problème mu ñi nga xam ne ñooy réclamer seng yi nga xamante ni bi yàqu nañ ci biir marché bi loolu effectivement ñu ngi ci at bu ne am na eh, étape bu ñuy jël depuis 2018 ba léegi def nañ première étape deuxième étape troisième étape quatrième étape bi yaakaar naa fii ilo a ilo a bi yaakaar naa pare na parce que wax na ma keroog ni yóbbu nañ ko préfet approuver na ko pare na ça fait coût de 4 cinq 500 donc il faut daañ ko defar li ci des aussi ñu ngi réclamé parce que mbir mi aussi vraiment ñi ñu gënoon réclamé li ñu gis rek moom la ñuy suivre parce que ku ñëw ci ñun réclamer dañu ñëw coow bind yóbbu dem réclamer mais ñi ci ginnaaw ko aussi vraiment gis nañu xëy na liggéey bi ci def rafet nag ku ne nag dégg nañ ko incha allah daañu ci topp. mais liggéey ba amul saytu suivi waaw foofu laa foofu laa bëgg a jëm aussi euh, foofu laa bëgg a jëm ñu xam ne li ñuy liggéey aussi intérêt général la du intérêt kenn nit intérêt général la. nañu bàyyi intérêt personnel ñu jëm intérêt jël intérêt général vraiment ñu utiliser ko bu ko defee ñëpp nekk ci jàmm parce que nit ku du liggéey ba pare aussi euh, nga ñëwaat on fi ñu liggéeyee lañ fay tere nga teg ko fa. ñu ngi luy ñaan ñëpp ñu nekk ci marché bi daal jàpp lañ ci loolu wàllu assainissement bi aussi ni mu ko waxee noonu la parce que caniveau yi doxul parce que kiire woon nañu ko at bu ne gàkku moo ko doon kiire mais ren jii dañu jëloon beneen société bu ko kiire mu kiire ko mais kiiras bi vraiment comme ni mu ko waxee dangay dem ba ci dal yoo xam ne war a ubbi fekk ñu fermer ko tax na ba ñu tëb ko ndox mi demul mais loolu dafa laaj reprendre à géro bu ko defee ñu ubbi ko par dal dal ba ñu ubbi ko ba mu jeex takk ñu xool ndox mi fi mu tagee ñu mën koo dindi bu ko defee bu tawee ndox mi mën a dem loolu moom ànd nañ ci moom à 100 pour nangu nañ ko à 100 pour cent euh, général de Gaulle aussi fii ndox mi temps euh, télé bi am na foofa toj am na foofa toj ñu ngi koy ñaan aussi vraiment lu mu ci mën a defar mu defar ko loolu daal ñu ngi koy ñaan ñu ko gërëm di ko sant aussi vraiment liggéey bi mu tàmbali aussi ñu mu mu bàyyi ci xel bu baax mu continuer te aussi ñu accompagner ko ba mu yegg ak jàmm. wax na ne aussi suba incha allah parce que depuis barki démb ba léegi sel bi moo am problème parce que al al talaata lañ ma waxoon ni daañ fi ñëw démb bi ñëwee moo nekk dañ koy entretien entretien bi par mais incha allah bu paree suba général de Gaulle lamp yi daañu ko defar ñoo ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu nekk euh, muy euh, tawat boo xam ne waa marché central ñu ngi la ko doon ñaxtu boobu léegi. yàlla ne tàmbale nañ ko fan ngeen tollu jamono ji ak nga fàttali ñu projet bi. d'abord euh, dañuy euh, leen di remercier mais également du sant bu baax le délégué de marché Thierno Ciss avec son staff mais également remercier conseil yëpp yu nga xam ne ànd nag man ak évidemment la presse tey dañ fi ñëwoon en visite de chantier. si fi ñu taxaw nii moom mooy la ñuy wax rue de gare mu nekkoon ci anam yu nga xam ne yu doy waar nekkoon jàmbatu population marché central ah comme déjà commune Thiès Nord dafa am programme bu yaatu si pavage déjà mobiliser nañu cent soixante-dix millions si wàllu pavage donc on a la route nationale donc sur benn linéaire u mille cinq cent mètres également la route Morolan sur mille mètres mais fii déjà euh, c'est un marché de 71 millions donc euh, bi nga xam ne day jël euh, rue de gare du Baro Ndiéguène lu gën a am solo ci liggéey bi mooy dañuy réglaale non seulement tali bu yàqu mais dañuy réglaale aussi problème d'assainissement parce que jàmbatoon nañ ñu ni ndox bi bu ñëwee du dem donc on a on a on va régler deux choses mooy tali bu yàqu bi mais également assainissement bi mais également pavage chaussée bi ñu def fii ci rue de gare ak euh, Amadou Baro Ndiogène incha allah buñ mooy deuxième étape bi jaxaaw bu ñu fa eggee aussi di ngeen gis ni foofu aussi c'est cent mètres bi nga xam ni dañu tali bu yàqu la mooy moom moom la ñuy wax euh, la route de ravitaillement dañ koy reprendre donc amoon na sax ay politiciens yu fa jaaroon doon tëf yëngal mais dama ni leen nañ ko reprendre dañu xolli tali gi ba mu set wicc defaraat lu bees tàq donc ñun on n'est pas dans le buzz quoi. Euh, wóolu nga ko mais surtout affaire canalisation du ku ko mën. waa déjà entreprise bi déjà au passage dañ koy remercier parce que diligence bu mu àndal ak aussi seetlu nañ ko parce que aussi au niveau de la commune euh, on a recruté ay techniciens supérieur mais également on a on une direction technique on a une service bi nga xam ni tey cahier de charge bi ak le suivi des travaux yëpp ñoom ñoo si nekk donc loolu moom dañuy jàpp ni de ba pare conseils yi sax am na ñu nga xam ne am nañ ci même am na nga xam ni c'est le bon sens bu ñu ñëwee xool dinañ la mën a wax ak les commerçants aussi bu ñu ñëwee dinañu wax fi nga xam ni gis nañu ni euh, mun nañ ko corriger loolu yëpp dañ koy boole si pañe pour améliorer les travaux yi nga xam ne moom amuñu bi nag ndax dafa am keneen kooku dénk liggéey bi wala ndox bi daan taa foofu aussi. Ah, rue de ga waa général de Gaulle problème bu ñu am mosuñu am sax problème boobu lu ñu seetlu mooy assainissement bi canalisation bi dafa dafa jaar si biir ilo bi ilo îlot bee donc bu ja ba mu jaaree si biir ilo dafa am ay régal mais commerçant yi dafa am ñu nga nii day xeeñ ñu daal koy fat bétonné ko tëj ko mais xam nga boo ko tëjee ndox bi nga xam ni mooy jaar général de war fa jaar dem ci grand canal bi léegi ndox boobu du amati fu muy jaar day taxaw Euh, régal yooyu nga xam ne ñoo nekk si îlot yi ñu toj lépp lu nga xam ne ay travaux yu nga xam ne commerçant yi ñoo ko def pour mën a euh, def travail de des travaux de curage pour ndox bi mën a dem reprendre ko carrément loolu moom incha allah dinañ ci nekk donc on nous a parlé problème de d'éclairage incha allah dès demain nos techniciens seront là parce que éclairage bu nekk général de Gaulle il faut nga am oto bu ñuy wax Nesel moom moo koy mën a def déjà dès dès la dès la semaine prochaine début semaine prochaine on va entamer ces travaux de d'entretien de de de ce réseau là. dénkaan bi nan la defar baax na mais bu waaw li ñuy ñaan suñu mbokk commercant yi mooy d'abord mënuñoo investir autant d'argent bu ñu paree. askan gi fi di romb du gis lu ñu liggéey maanaam ñu occupé ko et dinañ ci jël matuwaay pour que fi nga xam ni moom mooy avenue yi fi fépp fi nga xam ni def nañ fa pavage sosé benn bagage bañ a tegu ci kom ñu ngi leen koy ñaan aussi ñu jàppalañ si loolu parce que aussi bu ñu ñoo mënuñoo liggéey ba pare te askan gi du gis lu ñu liggéey salem c'est c'est se pareil pour la pour la voie Petersen tali gadro la mais tey doo ko gis donc ñuy ñaan c'est vrai que dëkk bi metti na ndaw ñi il faut que ñu am fu ñu yëngatu mais fii dooy ay ñoo ko def mooy des commerçants yu nga xam ne yor nañu boutique ba pare donc seen bagage nañu ko jéem nañu fexe moytu sose bi mais également euh, assainissement bu ñuy def bi aussi ñu dimbali ñu si parce que ñuy def ay assainissement euh, mu jàkkaarloo euh, regard bi jàkkaarloog sa cantine nga daal di koy toj tëj ko loolu boo ko defee ndox bi du jàll ñu ngi leen di ñaan investissement bu ñuy def bi ñu def ci bon usage pour njëriñu askan bi yëpp